Omar Faye laata may tourner ci Simon pour parler euh, du secteur euh, euh, culturel avant de revenir ci ñoom Pape Makhtar ak Cheikh Omar Talla donc posture ou opposition bi très rapidement Omar Faye ak maa ngi la dégg ngay dëggal deal bi Serigne Saliou doon wax depuis avant élection yi nekk ci la ci la ci la tàmbali woon nga d'abord opposition bi sax ñaari opposition une opposition dans le pouvoir et une opposition radicale et ça commence par Mimi Touré te si kaw la jëm parce que Mimi Touré elle a poignardé politiquement Macky avec sa déclaration la te ci guerre lañ jëm ñoom ñaar mais guerre bi Macky day calculer parce que li déstabilisé en grande partie l'opposition avec la mise en place de la CREI et tant d'autres ak patrimoine Macky Sall bi nga xamante ni Mimi Touré moo ko yóbbu conseil constitutionnel mu am ay affaire moo tax Macky reculer Mm. maa la wax lu mel nii mais ci kawam la jëm mais malheureusement li tax Mimi du am ay soutien yu bëri mooy gis nga nit boo yàggee du jouer yenn rôle yi nit ñi dañ lay jëppi c'est-à-dire que lu mu jouer contre le peuple et pour le compte de Macky dafa bëri tele telle sorte que tey même bu nekkee dans des combats raar ngay dégg nit di ko soutenir parce que fi mu jaar la elle a donc une légitimité de par ses fonctions qu'elle avait mais légitimité politique bi Mimi Touré mënu ko am mais elle peut faire mal. opposition bi soutenir nag. non du ko soutenir parce que si biir opposition bi am na lu mu leen def lu bëri loo xamante ni opposition bi mënuñu gis Mimi Touré donc elle risque d'être seule elle peut faire mal à Macky mais opposition bi moom dafa am dañu dafa am nu ñu koy xoolee. deal bi c'est depuis le référendum Omar Sarr. dañuy campagne mu dem si biir ñële di toog di waxtaan Amar Sarr mii ñuy wax sànq Ndoye Bane nee na il y a une opposition dans l'opposition une opposition qui appartient à Macky et une autre opposition à chaque fois qu'il y a des des, des situations Serigne Saliou wax na ko mais Macky day utiliser opposition opposition boobu tey moo koy permettre tey mu nekk dans cette posture de force mais tey y a une lisibilité yàlla moo ñu dimbali amal sa plan rek waaye sunu borom ngi fi xamoo nu muy def tey am na lu bëri lu feeñ du référendum ba ci législative ba ci tey présidentielle bi ñi doon toog di jouer lu bon yépp tey ñu ngi président muy Omar Sarr muy Idriss Seck muy Gakou Malick Gakou Malick Gakou est ce xam nga. Malick Gakou da ko gis ci ci ci. mi ngi ci biir Malick Gakou moo njëkk a joué rôle yëpp li ngay gis yëpp Malick Gakou la moo daan dem di seeti opposition dem di seeti Macky na assumer ses responsabilités dem ànd ak Macky moo gën muy taxaw fii di wax moom il est yàgg na est ce xam nga élection présidentielle yi passé nii bi ñu joxee résultat yi bañ na Macky Sall gagné na à temps pour cent. Idriss Seck tant de pour cent xam nga la Idriss Seck wax alhamdulilah rabbil alamin. kan moo wax alhamdulilah rabbil alamin. Idriss Seck moo alamin. parce que Macky gagné na. parce que Macky gagné na. waaw. xanaa moom bëggul woon gagné. <laughs> li mu wax moo dëgg dama koy dëggal si li mu wax. nee na dinaa dem campagne mais du ma attaqué la gestion du président Macky Sall. sa adversaire nga ne doo ko attaqué. kon am na lu Omar Faye d'accord ma ak yow de. waaw vas-y vas-y dama lay jox yeneen y on mhm. amul benn communiqué. bu coalition bi mu ànd ak ñoom ñëpp ay Bougane nag laa la wax ay Pape Diop ay ñoom ñëpp ak ay Hadjibou Soumaré ñu def coalition amul benn yoon ñu def benn communiqué ñu war a génn communiqué bi Idrissa day wax ne bu ko génneen contre le pouvoir man maa la ko wax. troisièmement mhm. bi élection yi jeexee réunion nañ benn kër kilifa bu bokkoon ci opposition bi doon ko jàppale ñaar moo wax ñetteel bi Idriss Seck la mu ne man awma lu may wax dóor nañu ba ñu daan nañ ñibbi te dem toog tous ces rencontres qui ont eu avec Macky Sall ak tous les grands ceux qui sont ceux qui étaient dans l'opposition xam nga kan moo ko dox d'accord hmm. mooy seetu ku ñëpp wax ak ñoom ne président lii président na waaw ñu dem seet la ñëpp ñi nga xamante ne ils ont dit un manifester un ñett catégorique ne danañ posé président laaj ko ba xam day def troisième mandat ñun ñëpp président recevoir leen xam nga une opposition pareille c'est normal que yi nekk ci posture bi parce que ñun ñëpp dañu am yaakaar ñu war a taxaw xeex pour askan wi mu am ñoo xamante ni nekk seen objectif mooy jéem a xool ni ñuy consolider étant dans l'opposition le pouvoir de Macky waaw léegi loolu noo ko mën tuddee wor la trahison la il faut dire le mot et c'est ça la réalité maintenant problème mooy ama fay suñ la déggee on a l'impression quand même hmm. que euh, da ngay wax ne que bon on a compris par rapport ak li nga doon wax ci Idrissa Seck dil la et que alhamdulilah bi mu wax entre autres hmm. mais également que euh, kii di Malick Gakou euh, mooy tuub par rapport ak opposition bi waaye dëggoo mën a la mooy lépp moom mooy dem di xool opposition bi di jox information président de la république di waxtaan ak fële mooy c'est-à-dire que moom mooy c'est-à-dire que moom mooy recruteur bi c'est lui qui recrute te li ma la wax nii kay li si kanam réew li bët raar la ñuy wax fii suñu ndimbalaan bi lu ñu xamante ko de. Hmm. il faut que ça soit clair lépp lu ñuy wax dañ ko fi waxaat tey même cette coalition bi commencé dessiné wu dans l'opposition on l'a dit ici avec Cheikh Bamba Dièye am na wala amul. et tant d'autres. Hmm. donc li ñuy wax lii moo tax affaire bi neex xam moo tax affaire bi neex mooy au moins li ñu war a wax. dinañ ko wax ba ñu ñi xam ne réalité bi lii la mais teg fii di ko négocier moo rey Sénégal yenn saa yi Pa Matar wax dara Cheikh Omar wax dara wala Mour Ban sax wax dara bu waxee ñu ne noonu lii Mour Ban wax rek fekk la réalité la wax ça peut être impopulaire aujourd'hui et populaire demain mais l' essentiel mooy la réalité mooy wax na xamante ni moom ñu war a wax. mënuñu continuer nag nen na Aïcha. Mhm. franchement moralement. nit ki war na am lu mu bañ. c'est bon nit war na am lu mu bañ am nga en tant que nit surtout sénégalais nga jommal ko sa bopp. d'accord nit war na ko mën a am mais taxaw tey di wane ni ki mii du nit ku baax pa gestion baaxul dañ ko fa war a jële nga xëy suba di nga defal ay ndaw rabbi léegi yow laa nga bëgg xëy na tu nga peuple bi jóg leen ñu xeex parce que lii ak lii ak lii ak mais peuple boobu aussi. ce sera un peuple qui qui est obligé d'être sceptique. d'accord donc dina est-ce que très bien loolu mooy problème bi. alors mais oui. kenn dañu bàyyi ñu xeex de. Hmm. au-delà de ces de ces acteurs politiques le pays n'appartient pas uniquement aux acteurs politiques ça appartient à tout le monde. Hmm. et il nous revient ñu tous ñu taxaw xeex maintenant xeex si li nga xamante ni mooy l'essentiel pas sur des candidatures man à ce que je sache pour le moment mu ban mais sur le sur le fichier électoral l'opposition doit se regrouper ne serait-ce sax ñu ñëw taxaw xeex ne il faut que mbir mi leer ñëpp leer taxaw xeex mais bu fekkee ne ku nekk da ngay toog mhm. naan woy man leader laa wala kilifa la su may ñëw nii laay ñëwee su may dem nee laay ñemee parce que yooyu dafa am même sur les plateaux da nga gis des gars de la imposer ay ay ay la non man format bi laa bëgg format mais ñoom aussi ñooy kat ak fu ñu fu nit ñi lan la ñuy def si réew mi lu nit ñi deful ba léegi damay invité nit muy am ay préséance moi je vois des ministres ou des députés yoo ni je les voyais devant certains responsables quand ils étaient dans l'opposition hmm. aujourd'hui tu les des débats ñu la non man du ma toog mais ñooñu fan la ñu ak lu ñu def si réew mi ba nu ñu nuyoo ak yow ñun ñoo la votel yor passeport diplomatique ñu war a débattre sur les questions de l'heure ci problème réew mi nga naan noonu non man diw du ma toog ak moom man diw laay toog. ma ministre la man vice président la wala ak lii.